مع ريح عن بر وطيب مسكا damay walbati mboolem wayini soodaan dawaayir sade bi jaradi seetaan suma xaatir da forootaani boori kaajoor may way ki jara mooñu tuuse ay leer may géwél bi lislaam xamal ma ko kon ma way la te kañ la yaa doon rabbaan jërëjëf mbokk yi loolu nag bu ngeen ko déggee mooy oote bu njabooti mawlaaya cheikh ahmad dam al khalifa yàgg koy oote depuis daanaka fukki at ak ñette ci ren muy nag ziyaara bi ñuy jagleel ki nga xam ne moo di al khalifa al marhum radiallahu anhu sayidi cheikh alhaji ahmad dam ibni cheikh al islam alhaji ibrahim Niass ñu koy amalee nag fii di Taïba Mbiteyeen programme bi nag nii la fas yéene tëddee bu ñu demee ba ci bés ba di aljuma fukki fan ak juróom-benn le 16 février daañu daal di xëy ci suba sa juróom-ñaari waxtu bu tegalee juróom-ñaari waxtu jàpp fukki waxtu ziyaara ak itam dalal délégation yi nga xam ne ñu ngi ñëw di délégation officielle yi ngir nag jébbal seen ak ziyaara boole ko ak wàcceem kaamil alquran alkarim 14 heures ñu daal di teewal julli aljuma ji ginnaaw julli aljuma gi ñu koy amalee nag ci juma ju mag ja ànd ak Cheikh Moustapha Niass buñ fa jógee 16 heures daañu dalal délégation bu mag délégation bu foor bi nga xam ne miin nañu leen ci suuf soosu di mbite Mbiteyeen waxtu wu lu mel ni teewee te muy ànd ak nag ki nga xam ne mooy kilifa gi ki nga xam ne ñëpp yàkkamti nañ ko gis ca bërëb ba ngir ay kaddoom ak i njàngaleem ak i ñaanam yu rafet muy kan Seydi Cheikh Al Khalifa Seydi Cheikh Mouhamed El Mahi ibn Cheikh Al Islam Al Hadj Ibrahim Niass Khadimul Umma buñ demee ba loolu am daañu ca toftal nag li nga xam ne moo di xadratu al jumaa boole ko ak wazifa ga loolu mi ngi am ci bu 17h jotee 18h jàpp 19h ñu daal di amal conférence bu yaatu comme niñ ko baaxoo di amalee ci ziyaara bi ren nag. ñu jagleel ko ki nga xam ne moo di Cheikh Ahmed Boucar Niang mu war a taxawee waxtaan wa jëm ci les critères et l'essence de la sainteté wilaya al khalifa Cheikh Ahmed Dame ibn Cheikh Ibrahim Niass un modèle parfait loolu nag buñ ko amelee ba guddi jot maanaam 23h jàpp fajar ja lii nga xam ne nag moo di gàmmu gi daal di door. ñu war ko taxawee ki koy taxawee nag di cheikh Mouhamed Moustapha ibni cheikh Ahmed Dame ibni cheikh al islam alhaji Ibrahim Niass mbokk yi kon nag lii mooy oote bi du ñu def rek lu mooy jébbal kàddu gi ki nga xam ne moo di Seydi cheikh Mouhamed Moustapha ibni cheikh Ahmed Dame al Khalifa mu daal di jotal ay kàddoom. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala mawlana rasulillahi salallahu alayhi wa sallam mbokki jullit ñi kenn ku nekk ci ak jëmmam ci ndigali xalifa bi Mawlana saaxibul fayda Cheikh Mahi ibn Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ci ndigalam ak kàddoom lañ ñëwee fii waaye mu diri sembaanam ci ndigali Cheikh Sidi Habib mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ahmad ñëw fi feggoog xalifaam magam mu Cheikh Ibrahima mi nga xam ne mooy suñu mag ñun ñëpp ñëw yëgal leen xew-xew boo xam ne xew xew jàmm la xew-xewi lislaam la muy Cheikh Ahmad ziyaara Cheikh Ahmad Dame Ibrahima ñu koy amal fële ci mbittéen muy ziyaara boo xam ne yaakaar naa ne bi mooy fukkeeli édition ak ñett ñu koy def fële ca mbiteen Abdou nga xam ne Cheikh ibrahim moo ko waxoon ne ko kaay ànd ak sarak Cheikh Ahmed Tidiane ak Cheikh Abdoulahi dem sanc foofu mbiteen ñi ngi wax ci waa dëkk boobu korok sëriñ bi bi mu koy sanc ànd ak Cheikh Abdoulahi ak Cheikh Ahmed Tidiane yi waa mbiteen yi dañoo jàppoon ne ki leen bàyyi yebal mag la waaye biñ ñëwee dañoo gis ne waxambaande la ñu tegal ko gën ci jamono yooyu sëriñ bi cëppeelu wàcc bi mu wàccee karaama gi njëkk foofu ñu lalal leen benn basang ndekete basang gi ñu leen lalal ñoom ñett ñu toog ci ci kaw jaan lañ toog te jaan jooñ ci yëngatuwut sax ba ni ñu jógee kon ñooñu ñu màgg lañ di leen di ziyaara nag da dini sembaanam ci réew mi pour jàmm am fi dal am fi ndax dañ ko soxla lool ci jamono ji soxla nañ jàmm ci réew mi soxla nañ dal ci réew mi soxla nañ sëkiina ci réew mi loolu nag dama koy bàyyeeg imaamul akbar imaam Cheikh Ibrahima Niass bu Taïba dana wax ci kàddu Seydi Habib ndax siidi bi fi toogoon kàddu gi moo koy wax mën naa wax ci kàddu xalifa bi mën naa wax ci kàddu imaam waaye ñu ngi oo mbooleem jullit ñi fu ñu mën a nekk ci àddina bi di oo waa Dakar ki leen représenté fii di Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Amin ibni Cheikh Ibrahima Niass ñu ngi nii feggoog doomam di taawam Cheikh Ibrahima ñu ngi oo mbooleem waa Mauritanie haadi Chérif haadi Neama ma nga nee toog bés bi nag dañ koo darajaal ay nit ñu kawe ka ca jiitu mooy cheikh Mouhamad Nahwi al Mauritani mi nga xam ne min as-saabiqiin al awwaliina ñaareel nit ba ca topp mooy cheikh Ibrahim Fall bu Koosi maam Ibra Fall ñetteel ba mooy suñ maam baay Ilimaan Niass ñeenteel ba mooy cheikh Mouhamadul Khalifa cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ak El Hadj Keba ak El Hadj Baram Ñang ak Seyda Hawa bint cheikh Ibrahim Niass ak Seyda Ndeye Ayda bint cheikh Ibrahim. ñu ngi ciy oo mboolem jullit ñëpp kon dañuy jox kàddu gi sëriñ bi rek si ko defee mu ñaan oote te ooteem mooy gën a jotal suñu oote yal nañu yàlla yóbbu ci bés boobu ak jàmm yàlla defal nañ ci lu kawe suñ jort wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillahi sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala tabiina wa tabiin bi ihsanin ila yawmi mbokki jullit ñi mbokki taalibe mbokki dëkkandoor yi ak asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di oo ci teraanga ñu ngi leen di oo ci xéewal ñu ngi leen di oo ci yàlla ñu ngi leen di o ci fajog xaajo ñu ngi leen di oo ci ag yëkkati ko dolleeku dañoo wax ne ci fàttaliku ñu baax ñi ci la barke di wàcc am geneen wax gu wax ne ci fàttaliku ñu baax ñi ci la màndi di wàcc lu ci man xew rek ñaar yépp soxla nañ ko te fi mu ne nii ñun ñëpp li ñu dajale woon fii du lenn lu dul loolu soxla ak dooleeku ci zaahir ak ci baatin ak ci dëggal ak askanu géñ askanu ne taalibe lañ euh, ziyaara Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu nee na amul benn firi lu dul ziyaada te mooy ak dooleeku te loolu ñun ñëpp bëgg nañ ko kon nag kàddu yi nga xam ne jiitu na fi sama rak Cheikh Moustapha wax ko ñun ñépp la itteel suñ xew la ñun ñëpp xalifa Cheikh Ibrahima radiallahu anhu la fàttali ko ay jaar-jaaram te xalifa nag du lenn lu dul jëmm ju fi ne woon jóge fi keneen uutu ko ba abadan nag euh, te Cheikh Ahmadou Ibrahima radiyallahu anhuma ñun ñëpp xam nañ ko cig lewet cig mbaax cig tabe cig oyof cig taalube taalube bàyyi dëgg la woon kon nag ku dem foofa ngir moom mu tax laa jóg na la óor ne li ngay ut ak li ngay sàkku am nga ko soxla nag bëri na mbir yi jaxasoo na lënt lënt yi am na li koy dind nag mooy suñu ooyee ci yu mel ni ñu uy ci suñ njëriñ rek a fi ñu njëkk yi al ñi ñuy wax awaayil xidmaal nañ seen sëriñ ba dem ak ngërmandeem li ñu war nag ñun mooy na ñun fekk nañ maam yeeg bàyyi ci tànk yi ci lañu war a aw ci lañ war a aw ngir am suñ bëgg-bëgg yàlla ñu ci yàlla yóbboog jàmm yàlla defal ñu ci ndam yàlla yóbbu nit ñi ci jàmm delloo leen ci jàmm lañ lépp luñ fa sàkku ñu ñaan ko fa yàlla ñu ko yàlla defal te yàlla nañ ko yàgg a def allahumma salli ala sayyidina mbokk yi kon nag ñoo ko déggandoo ñun ñëpp yal nañu ci yàlla àggale muy doon ajuma le 16 février 2024 ji ñu nekk ca Taïba Mbiteyeen ñuy fàttali nag ne ca alxames ja danañu daal di amal li nga xam ne moo di wàcceem kaamilul quranil karim bu ñu xëyee ci fajar ga bu ñu demee nag ba ci àjjuma gi programme bi daal di wëy ñu ciy oo képp ak fu ñu mënti nekk ci biir réew mi ci bitim réew danañu ci yàlla àggale ak jàmm.